sa Sadikh Thiam ba léegi àqu ki nga xamante ni moo di awa Cheikh bàyyagut ko ndax dafa jëloo ki nga xamante ni moo di ñaaralem teg ko ci kaw awam bi nga xamante ni moo di awa Cheikh waaye gis ngeen joojoo mii nag li nga xamante ni moom la ko fayee tey jii nag réccu na waaye loolu wolof njaay naan réccu dina fekk jëf moo dal ki nga xamante moo di Sadikh gis ngeen doomam ji ak comportement bi nga xamante moom la amee si biir këram dem ba si ki nga xamante ni moo di maamam sax xam na ko si moom ndax nag dara waralut ko poroblème bi papaam ak yaayam am rawat na sax yaayam jamono bi nga xamante ni génn na ko kër gi mais yaayam est ce dina ñëwaat tamit nga xamante moo di ci biir kër yi ki nga xamante moo ko ak problème bi nga xamante ni moom dafa bàyyi woon te ki nga xamante moo di sa dix mii nag yaakaar naa tant que Awa Cheikh ñëwutal ñëwaatul ci biir kër gi jàpp mën sax jëlee li nga xamante ni moo di ab dof ndax nag li nga xamante moom la ko joo jooja def ni nag du ko métti trop trop trop trop trop waaye kenn ki nga xamante ni moo di père Ndiouga père Ndiouga nag nekk na koo xamante war nañ ne responsable bu mag bu mat responsable na ndax nag way jur nii lay doxalee fi nga xamante moo ci biir këram gis ab njabootam sa ngéem wala gis ab sëtam sa ngéem gis loo xamante ni ab jafe-jafe si biir kër gi nga woo ñi nga xamante ni ñoo ko séq a waxtaan ak ñoom xool nan ngeen di trouver li nga xamante ni moo di solution si problème yi nga xamante ni moo am si biir kër gi donte nag mu ngi jéem a forcé ki nga xamante ni moo di Khalil euh, Thiam pour mu takk ki nga ne moo di ma moo di bi mais loolu yëpp jàpp naa ne bëgg njaboot moo ko yëbbee waaye bëgg tamit njaboot ñëpp nekk ci jàmm ba njaboot gi tasaaroo jàpp naa ne moo tax mu bëgg li nga xamante ni moo ni mel mais Sadikh mii mu ngi ci problème yoo xamante ni guddi gu bët setagul la.